li nga xamante ne moom moo di mbay mi ci département bu Mbacké rawatina ci euh, Touba da ngeen dégg leeral yi nga xamante ne Abdou indi na ko ci euh, projet bu nu mel danañ dem ba fële ca Patar ak euh, commune ba ci boppam moo tabaxal sage-femme ba ay logement yu mucc ayib yoo xamante ne daal danañ ci mën a dëkk bu ko defee ñu gën a jege ñi nga xamante ne ñoom la ñuy faj da ngeen dégg kàddu yi nga xamante ne moom la kii di maire bu Patar di mbay sàmb yëkkati ci biir xibaar yi danañ fa jaaree jàll ba fële ca commune bu Euh, di commune bu danañ dem ba foofee ca Baobab garage ak coow li nga xamante ne coowal wàllum forage bu paan la ak yenn ci seen ay moteur yoo xamante ne daal ña jiite woon comité de gestion bi ñoo ko yoroon ba léegi nanguñ ko jébbal ñi nga xamante ne ñoo yor comité bu bees bi Ablaye Fall indi na ci ay leeral da ngeen ko dégg ci biir xibaar yi gëstu bi ñeel wàllum wér-gu-yaram ak euh, euh, poste de santé bu Sam foofee nag ki nga xamante ne moom moo di sage-femme ba fa nekk li mu nemmeeku daal moo di wàllum avortement comportement yi dafa bëri lool dikkaat ñetti li nga xamante ne moom moo ko waral mbokk yi ponk yaa ngi noonu léegi-léegi ñu yaatal ko jërë ngeen jëf si déglu bi rajo Salaam FM 91.9 mbokk yi midi jot na ba tegal ñaari simila bokk na ci xibaar yi ni ki démb lañ doon àtte juróom-ñaar ñoo ñi nga xamante ne tegoon nañ leen loxo mu ñeel wàllu manifestation yooye nga xamante ne doon nañ ko amal ci jamonoy grève chauffeur yi benn fan ak ñaar ci weerub décembre kooki di euh, Bara Tine Sow moom nag daal dinañ koy daan benn atu kaso boo xamante ne def koy euh, tëdd ak kooki di Abdou Fall Ndiaye Adama Silla Galaye Faye ak Ibrahima Ndiaye bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom lañu jàppandoo woon ñoom nag liñ leen euh, tuumal moo di bokk ci benn rassemblement boo xamante ne daal dafay xañ nit ñu ñu mën a def seen liggéey nu mu ni mu gënee ba tax na ñoom juróom benni weer kaso yoo xamante duñu ko tëdd moom lañ leen daan niki noonu tamit war nañoo ndàmp kër gi di dakaar dem dikk lu tolloo ko ñetti millions ci sunuy koppar loolee ki démb la woon foofee ca tribunal grande instance bu Diourbel ba tey mbokk yi ci biir euh, xibaar yi tamit euh, ñu waxtaanee ndaje moo xamante ne ministère de l' intérieur moom moo amaloon ni ki démb mu doon ndaje moo xamante ne dañ ci doon sargal agent yu bokk ci ministère de l' ci bilee ndaje nag la secretaire général adjoint bu ministère de l' intérieur daal di fësal mboolem ay déclaration yu manif yu ñeel ay manifestation yu ñu jot amal ci réew mi ci atum ñaari junni ñaar fukk ak benn du tolloo ko ñetti junni ak ñetti téeméer ci ay déclaration de manifestation daal dina nañ koy jot ci lim fukk ak ñett ci ñoom daal dañ leen a gàntaloon kon ñetti junni ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom ci ñoom lañ déclaré woon ba pare ñu daal di koy nangu ñooñee war nañoo mën a def euh, manifestation ci lim boobee nga xamante ne nangu noonu nañ leen lii di manifestation ñetti junni ak téeméer ak fukk ak ñeent ci ay manifestation jot nañ ko amal téeméeri ak fukk ak ñeent ci ñoom ñu daal di koy gàntan kon boo koy xayma rek téeméer boo jël ñett ci ay manifestation yoo xamante euh, jot euh, lañ ci déclaré rek te jotuñu ko def waaw téeméer boo jël rek ñett ci ñoom ñoo ci nekk ay manifestation yoo xamante ne tere nañ ko mu doon xibaar yoo xamante ne ñu ngi ko fësal ni ki démb ci ndaje moomee nga xamante ne si lañ doon sargalee agent yu nekk ci ministère de l'intérieur ba tey mbokk yi ci biir xibaar yi nañ leen ko waxee ca ponk yi rek dañuy dem ba foofee ca commune bu Touba ni démb lañ doon voté lii di budget ba ñu nga koy xayma ci ñeenti milliards ak juróom-ñeenti téeméeri million ndaje mi leen nag mu ngi am ni démb ci teewaayu sous-préfet bu arrondissement bu Ndaam ak maire ba Abdou moom dikkat na ci li nga xamante ne daal moom moo waral euh, lii di euh, budget bi bi lee yoon ñu daal di koy xayma ci lu ni mel ak liñ ci nam ma dem ñu teewlu. 45 euh, jours ñu ngi fii di euh, monter budget bi bi ñu ko ak benn commission ad boo xam ne maa ko kari ci monsieur le maire euh, Ndiame Ndiaye ak experts yi ñu àndoon ko tëgg nañ budget bi ba pare moom lañ doon jébbalaat tey conseil municipal bi pour ñu wate ko pour ñu mën a mille année 2022 donc woote nañ ko donc conseil bi yëpp daje nañ wate nañ ko. ci à la l'humanité du à la l'humanité lañ ko wate di di di ci sant yàlla bu baax di ci julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam liché ci budget quatre milliards neuf cent bi ci procès yiñ ci tër yëpp ak yi nga xam ne tër nañ ko ci deux mille vingt et bi ñu àggale ko ak jàmm ku nekk xam na ne deux mille vingt et bi gis ngeen procès yu mag yi ñu entamé muy waari huit kilomètres cent muy Madiana Sam Euh, muy école yi vingt salles de classe yi nga xam ne mi ngi en ak poste de santé yi nga xam ne mi ngi en cinq poste de santé ak euh, centre de santé bi nga xam ne moom la ñuy parwaay muy centre de santé référence bi ñu war a def fii ci daar Daaru Manaan donc soo àndee ak euh, yëpp mi ngi en cours soo àndee ak budget bii ak li ñu def ci éclairage public bi ak li ñu def ci addition d'eau ku nekk xam na ne 2021 loolu la ne def nañ tres treize mille cartes yo xam ne ne am na addition d'eau donc ak lii ma wax nii donc budget 2022 bi aussi ñoo ngi ci prévoir ay quatre de de santé ak ay salle de classe éclairage public extra extra yu bëree bëri defe naa ne gis ngeen ni ñu ko waxee sànq ci budget mu doon kàddu euh, maire bu Touba Abdou Lahad Ka moom sax la ñuy des ndax indi na ay leeral tamit lu ñeel euh, coowal délibération terre boobee nga xamante ne foofu lañ bëgg a def dak bi gannaaw nag bi ay kàddu yëkkati ko foofee ca saal ba ñu wax naan dañoo délibéré ci ab euh, titre foncier moom indi na ci ay leeral Abdou Lahad Ka ñu teewlu ko. délibération bi defe naa ne lu leer la su préfet leeral na ko ci article xam nga état Sénégal dafa organiser. def ay département mu lu mel ni agriculture mu def ministère de agriculture ak ñuy am ay fonds yoo xam ne day jógee di ñëw di dimbalee agriculture di dimbalee monde rural bi loolu su amee fu mel ni Touba Bogo ñu ñu def ko ci Sénégal gépp am yenn communes yi nga xam ne nag dañ ko fay def donc bu ñu ñëwee Touba ñu ñëw Touba dem fu mel ni Touba Bogo ak daaru gogo barab yooyu am na ndox donc bu ñu nattee ba nga xam ne xam ne ne foofu am na ndox mu bari mu neex moo xam ne waras na fee def ay euh, mën a bay mbayam noor boo xam ne nii dafay indi développement euh, ci ci ci ci ci gox bi donc bi moo tax bi ñëwee ñoom ñu orienté wu foofu bi ñëwee nag ñu def ñaari projet may benn projet dëkk bi ñuy wax Touba Bogo may projet dëkk bi ñuy wax Daaru Bogo euh, ñoom nag ne leen di kareeloo ay séyee bu ñuy ñëw ci projet bi ñu créé CIE yi CIE nag demander benn délibération boo xam ne nii dag bi muy tool bi fi ñu koy def dafa laaj ñu def ñu defal leen délibération boo xam ne nii mooy sécuriser xaalisu projet bi ba duñu ko ji ba pare borom suuf si ñëw wala nit ñëw di xëccoo suuf sa wala ñu naan kii moo ko moom kii moo moom moo tax ñu ñu jaar ko ci par administration su préfet dem ñëw bind ma lettre wax ma ko yóon ñu yónnee fa ay ndaw ñu dem def enquête bi ba nga xam ne su fii ci domaine national la def enquête parce que ñu ngi naan euh, titre foncier jegewut diggante ak titre foncier bi man na vingt kilomètres vingt kilomètres man na ci domaine national bi la ñu ñu waxtaan ak waa dëkk bi ba jiboog ñoom def enquête bi ba mu wóor leen ne waa dëkk bépp d'accord nañ ci ne nañ ko def fii ñu créé CIE bi bind lettre sous préfet sous préfet indil ma dossier bi ñu def procès de délibération bi ma war ko wate ak conseil municipal bi jox ko sous préfet mu approuvé ko ñu jox ko CIE bi CIE bi jox ko procès bi ki ngir ka ñu mën a def euh, procès bi donc ci ci biir loolu sax am na nu ñu ko tënkee parce que procès bi délibération bi du ki mi maa ngi dégg ki doon ñu doon tiiree naan de buñ ko defee nit mën na dem def ko bàyyi def ko titre foncé def ko lii mais am na ay clause yu ñu def ci délibération bi mhm. boo xam ne bind nañ ne procès bi moo ko tax a jóg su su procès bi jeexee wala dimu ci procès bi dafay delluwaat domaine national mu doon kàddu yi maire bu Touba Abdou Lahad Ka ci ndaje ni kii démb ñu doon voté budget bu euh, mairie bu Touba ñu daal di koy xayma ñeenti milliards yu teg juróom-ñeenti euh, millions ak lu euh, topp bu ñu jógee ca commune boobu dañuy jàll ba beneen commune commune bu Patar foofee maire ba di mbay Samb moom moo doon jëbale ab logement foofee ca bërëbu fajukaay ba logement boo xamante ne fa femme bi lañ ko jagleel li leen nag mu ngi ko def daal ngir gën a jegeñal ñi nga xamante ne ñoo di agent de santé yi population bi ñu teelu kàddu kii di Mbaye Samb. waaw néeg week yu mel daal xam naa coût bi daal moom moom mooy gën a am solo coût bi yëpp daal treize millions la. Ah, non fii lañ ko def logement sage-femme. ko kii la am nu mu tuddati euh, ICP bi moo am logement. boobu moom boobu it fii lañ ko fekk. ah dara yombul to àddina it lu baax du yomb. waaw yombul moom ndax réaliser. yombu waaye ñu ñaan yàlla mi nga xam ne lépp lu sotti moo ko sottal rek ñaan nañ ko ko may nañu ko ba ñu sottal ko bo di ko jéble tey gi bon ñu doolee sant ah njeexantal bi mu mën a am léegi sage-femme bi su sori woon it de léegi dina jege ah, ndax ñu ne sàkket xeer bi koy daar da koy da xeer bi koy teye da koy daru bon soo nee sage-femme dafa war da sori amuy liggéeyee ndax ah, suñu mbokku jigéen yi heure bu ne lañ fi lañ fi lañ fiy ñëw te suñu ñëwee ah, fekk ko fi ci la gi dina gën a am solo booba waa ñaax bi may jël de sooy wàlliyaan sa penc moo tegul bon poste paataar bii nañ ko téye seen téeméeri loxo waaw ndax mooy seen avantage dina doon dërëm bi du gën a gaal waaw yëg-yëg bi may wax rek ndax premier logement bi rëbub janax la rek fii ci poste ca paataar suñ fi defoon logement jamaa it logement bi mooy njëkk rëbub janax bi njëkk a teb rek mooy janax waaye beneen bu teb it danga naa génnee na ngoor mu doon kàddu yi kii di mbay Samb maire bu Patar ci ndaje moo xamante ne def doon jébbale logement sage-femme foofee ca euh, Patar bu ñu fa jógee dañuy jàll rek ca kaw euh, wetu Baba Garage ak lu ni mel foofee nag ñoom jamono yi wàllum euh, seen forage bi daal moo paan paan goo xamante ne nag fi ñu toll nii ñu ngi am ay jafe-jafe ndox ki nga xamante ne nag moo jiite comité de gestion des forages yi mu ngay wuyoo ci turu Ablaye Fall indi na ci ay leeral ñu teewlu ko. à dix heures du matin pompe forage bi tombé en panne léegi bi nga xamee ni bii ni def nañu ay pexe ba génnee ko le vendredi bon ci la ñu seetloo ni pompe bi moom moo am problème mais en réalité moteuru pompe bi moom baax na donc actuellement euh, di fait que forage Babagraye dafa amoon ñaari teen benn teen bi bon groupe euh, moteur benn moteur moo ci nekkoon moteur boobu nag actuellement moom mooy fonctionner bon ak gasoil bi nga xam ne bii ni moom lañ ci def mécanicien bu koy taal ko bon muy fonctionner di fonctionner ba ay vingt une heure vingt deux heures ci guddi moom mu fay ko bon débit bi nag dafa tuuti par rapport aux besoins des populations parce que euh, moteur boobu trente sept mètres cubes rek lay man di lay man di lay man di xëcc quoi lay man di pomper di ko yóbbu ci château bi alors que bi ñu yoree pompe bi daaw nañu am presque cinquante mètres cubes à l'heure différence boobu nag moo tax ndox mi na mu war a doyee doyegu ni pompe bi nag moo paan bon depuis également ñu ngi ci ay démarches nu nu mën a fexe non seulement réparer pompe bi mais du fait que comité bi nga xam ne bii ni moo signante woon ak ak ORTEC ñu ngi ak benn pompe boo xam ne bii ni forage bi moo ko moom te président d'alors bi moom moo ko yoree entre même man ak beneen délégué bi yi nga xam ne ñoo nekkoon ici au niveau de Mbaba bon représenté woon donc le quartier de Mbaba dans le comité directeur non dem nañu gis ko le mercredi dans la soirée pour laaj ko matériel boobu mu jox ko forage bi mais daf ñu gàntal li mu nu gàntalee malheureusement le lendemain matin jeudi ci la affaire bi taxaw mu doon ah, kàddu yi kii di Abdoulaye Fall président comité de gestion des forages yu nekk foofee ca Baba Garage doon dikkaat ci paan googe nga xamante ne seenu forage daal dina koy paan ñu ñëwaat ba fii ci Touba ñu dem ba fële ca poste de santé bu Sam foofee nag ah, dañu nemmeeku daal wàllum avortement yi bëri na lool lu fayam am na nag kenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, kilifa yi euh, poste de santé boobu yëkkati nañ fay kàddu di dikkaat ci mbir mu ni mel gi ñaan na caw ñu teewlu ko. milieu bi ñu nekk c'est que nit ñi lu ci bëri cause culturelle la parce que nit ñi dañuy toog nga toog benn weer gisoo fóot nga toog sa kër te normalement soo jëlee benn weer boo gisul fóot rek dangaa war a ñëw hôpital ñu xool ndax ëmb la wala du ëmb am na ñoo xam tamit suñu jëlee benn weer dañuy toog seen kër mën nañoo gis dara sax ñu xalaat ne ëmb la dañuy xalaat rek ne fóot bi moo tëju woon moo ñëwaat or que ëmb la liggéey bu metti bi ñuy liggéey charrette yi ñuy dugg surtout fii nga xamante ne seen moyen de transport yi mooy loolu charrette yi hmm? loolu lépp da ciy joué mën ngaa ëmb tamit feebar sa yaram yiy tàng nga toog seen kër ndax yaram bu tàng boobu rek mën naa yàq ëmb feebar baaxul ci ëmb euh, am na ay cause tamit utérine cause yoo xamante ne butitu njurukaay bi moo koy ci butitu njurukaay bi lay nekk maanaam day am formation wala nga am fibrome jëlaale ëmb mu fi mu placé woo du mën a dem ak ëmb bi mu yàq ëmb bi wala kis mais fii daal population bi la plupart du temps yi yàq ëmb bi liggéey bu metti bi la charrette yi ñuy dugg dang-dang su ak ngoon ñoom moom tooguñu su ak ngoon ñu ngi dang-dangi di liggéey te xam soo yoree ëmb bu ndaw àndul ak liggéey yu metti àndul ak sëy bu metti tamit mu doon kàddu yi kooke di Guignan Thiaw nekk foofee ca poste de santé bu Saam doon di ci wàllum avortement yi nga xamante ni saa su dañ ko fay nemmeeku ki ñu taataanal kàddoom di a fay mbokk yi mi di jot na ba tegal fukki simila ak juróom lii moo fi rusoon ci wàllum xibaar di jaajëfal Serigne Fallou Sig mi nekkoon ci wàllum technique bi ci kàddu gi Imam Moussa mbokk yi wéy leen di topp programme yu rajo Salam FM jaa ngeen jëf. yéen ngi déglu salaam FM fii ci Mbàkke 91 point 9. Salam FM